nee na cofeel moo indi ñu tuddee njabootu Cheikh Al Hassan bi tey bés bi. te duwoon naa ko xaaw ñi. te itam loolu yéemewul. saabu si xàkkoon Cheikh Al Hassan mee njële Cheikh Juma. ndax diggante Cheikh Al Hassan mee njële ak El Hadj Cheikh Al Juma. kooku ànd. lu ñu xam la hay si en tawa kan en nani cimtiɗi donte fekke seen jamono ñoom ñaari dégg nañu nettali bi ko jiiɗen ko heen ko kono simtirano ni ɗum way nee na liñ ci gis nag mooy liñ ci nettali te loolu moo ci xewoon itam sabu Cheikh Saad bu on tenen Cheikh Saad bu Cheikh Alhasan nee na Cheikh Saad bu doomu Cheikh Alhasan di xalifam kay ɓisgu mum fof ak njabootam bi yëpp ko mbaɗi ko mbawa ɗon jillu nee na li ñu def tey ci bés bi ñoo def lu weesu loolu si ne tutteema hoorem bu la nit joxee boppam gas na nii jeexal na jeex na jeexal na sa diggante ak moom sabu kala ko wone dow leydi neɗɗo hoorem ɓuraji ɗum ndax lépp loo gis ci kaw suuf nit ki boppam moo ko gënal lool heɓe noon ñoom nag hitaande fof at bu nekk aɓini koɗto ceerno o ñu ngi nganale sëriñ bi heɓen mbaɗa gammuji eɓe nodda ɓesgu ceerno di def ay gàmmu di ci woo njabootu sëriñ bi sikku mawlud ariɓe heɓkoɓe immoɓe pucca loodooni nee na bu gàmmu jotee ñoom ñëpp ñu fabu daal di gàmmu ci get ardo alhamdulillahi rabbil alamin nee na alhamdulillahi rabbil alamin ko jàngatenoɓe jàngi lépp lu ñu waroon a xam ci xam-xam itam xam nañ ko e mbaano jooɗo ɓe ngamma gàmmu mumen nee na mënoon toog seen kër gàmmu fa seen gàmmu e piro firoji mumen ñu daal di fa tafsir seen i ay tafsir woni noon ko almudaagu wante nag da di ak taalibe moom a ɓurata waaw at ɓura yiɗ dangay ngay gën a mën di gën a bëgg di gën a am cofeel ɗum nafata almuuda loolu nag mooy jëriñ taalibe ɗum nafata ɓiɗɗo hakkunde moma baamu loolu itam mooy jëriñ doom diggante mag waajuram ɗum kadi nafata debbo hakkunde moma joom galle mum nee na loolu itam mooy jëriñ soxna diggante mag borom këram nden noon alhaji abdoulaye kon nag alhaji abdoulaye on jaaraama am ngeen jërëjëf Cheikh Sidi on jaaraama Cheikh Sidi am ngeen jërëjëf on jahi bu ngeen demee mbi on ceerno Cheikh Sadbou ngeen wax sëriñ bi Cheikh Sadbou min mbeltima no feewi ɓernde amen ɓuuɓi bëgg nañu lool suñu xol itam sedd na sabu komin jii ko ndax li ñu gis dey ɗum joni amen doy nañu lool sabu kala mbo in yii on goo inna na on Cheikh Aljuma inna nee na képp ku leen gis mbaa mu gis ñu tuddal leen alhaji Cheikh Aljuma dina andi ko ni tan ɗo foti wa xam na ne nii rek la mën a mel deeƴere nde dal gi ak gàndal nga xam-xam bi a sifa o ak melokaan bi a yankinaare ndi ak wàccee seen bopp bi musum ɗo siɗal juma ni tan waawi ne ku namp ci alaji la mën a mel shérif gooto fiiri kam wi ne mus na ko wax ni si mi yii neɗɗo ina tankila yim bu ma gisee nit di tànqal nit ñi goo ina fundina yim mbaa muy pëndal nit ñi goo ina jaakna yim mbaa muy jaaxal nit ñi mi ko ko sikh al ne ñu ne ko ci cheikh al juma la bokk mami ɗuɓi mi yeddaani kono ne aakigu mum nee na dina ko ne yow day weddiwuma ci nga bokk waaye yaroowuloo ko alhamdulilah rabbil alamin kon nag alhamdulilahi rabbil alamin yal na allah sellin ceerno on yal na yàlla wéral sëriñ bi ɓoy nana en o xalifa men o mu yàggal fi lool suñu xalif bi alhaji hamadou aysata dendangal ɗo suñu cheikh aljuma foof alhaji mouhamadou aysata ak mbooleem njaboot ala cheikh aljuma mais nde heccankimi yi kadi ko nii yurmanimi ko yooɗimi barki demba day gis na loo xam ne lii yërëmtalu na ci ay kanamam waaye itam lu rafet la ci moom taaru lool ñandi xayma cheikh saad bu arata war a heccanki barki demba bi fa xayma cheikh na cheikh saad bu ñëwee barki demba gën ardu gaari wuro xalif ɗo bi ñu ñëwee ci kër xalif bi noddi amen nder suudu daf ñoo woo ci biir néeg jataay o heewano hay yimɓe de jataay bi dey bariwul woon sax ñu ko teewe ba hamadou umul wi amen ngarinno en ceerno papu cheikh papu cheikh aljuma mi di cheikh mouhamadou umul ne ñu ñëw leen wuyu ji sëriñ bi hadrane abdoul ina ɗon won ɗo cheikh hadrane abdoul mu nga fa woon kay sukaaɓe heddeɓe ak yeneen xale yi ceerno o yaltinini mbuus ne sëriñ bi daal di génne ab ëmb tege yeeso ba umul mu tek ko ci kanamu suñu maam muhammadu umul ni lime hadiyo mu ne len wagné len adiyé bi fo mi den lima den lima den paquet néna ñom ñoom ñuy ñuy wagné di wagné adiyé bi mu bëgg jox shérif bi hamin tege ba ñu teg ko min bi ɗum ko nangam te ñu ne ko li day nangam la dum tege do uju ɗiɗi nee néna mu mu di ñaari jooni cierno wi totte dum mu ne ñaari enveloppe totton sirri del len loolu ngeen def ko ci enveloppe jox ko sëriñ bi adiya wiye ko ni al mutla almorɓe laaɓe tottirnomi gamu gammuji wallahi min jumna mu ne lii ma jox tay sëriñ bi day sama talibe lawbe ñoko dajale won jox mako besu gamu ni la ko fi takkee ba tey ten hadi yawti mi yawtinirago no ne kon kep ku ñu jox adiya nga diko jallale nonu noonu ani waɗa ko poɗɗa wat ne yaangi def li nga wara def ñu ɗum ni o enveloppe mo ngadduɗon ɗo loolu dafa daldi dikkat dikkaat ba tey ci enveloppe bi ngeen fi indi yeen jabo cheikh alassane yalla yo allah ɓesdan on yàlla na leen leen suñu borom fulandil yàlla yu àlla ɓesdanoon annoore na leen yokk leer ak cellal ak wér Euh, nanodiral ak déggoo ɓesda dental ngal mu yokk mbooloo mi min de kala ɗo min ngoni ñun dey fépp fu ñu nekk miɗen on tiitarora yéen la ñuy tiitaroo saabu oyno on ako cheikhal juma wonɗo ndax yéen a ngi ci rëdd wi El Hadj cheikhal juma rëddoo janginde di jàngale a juulde ak julli ak rewde allah ak jaamu yàlla a waɗde ko potɗa wa ak di jëf li nga war a si aduna o foof wayi moon bu adduna bi yëpp meloon ni yéen alhamdulilah rabbi kon sant yàlla alhamdulilah rek la ñu wax yàlla yo allah hebbin hono moon yàlla na suñu borom feesal ñu mel ni yéen kii di El Hadj Cheikh Aljuma lan moo ko yóbbu woon ci Cheikh na Cheikh Saad ndax nee na Cheikh Aljuma bi muy dem ci Cheikh na Cheikh Saad bu fekk na lépp luy xam-xam moom pegg na ko maanaam maîtriser na ko am na amoon na une profonde assise scientifique ndax boobu jàng na alquran jàng téere xam-xam yépp ba ubbi daaraam biir Guet Art maanaam benn besoin spirituel benn dollent la bëggoon ci wàllu digganteem ak boromam loolu moo ko yóbbu ci Cheikh na Cheikh Saad mais fekk na mu samp li mu waroon a samp yëpp. Nenek, nak li nga xamne ne moko yobone ci cheikh na cheikh sad bu mom la ko cheikh na cheikh sad bu jox moy lan moy zikrullah moy secret la ilaha illallah ndax cheikh na neku fa nan kan dama lay jangal wala dama lay tarbi nga top ma nang. na ne cheikh aljuma fesna lolou kesse la soxlo ñu gisse ñaari yoon mu jox ko ndax li firnde ne Cheikh Aljuma gor yalla la won bi muy dem ci cheikh na cheikh sad bu amna na juróom-ñetti góor yàlla yo xamne ay talibem lañu won mu andon ak ñoom manam commencé won na am ay talibem mom ala Cheikh Aljuma bi mu dem ci Cheikh Cheikh Sall bi mu démé Cheikh na daf ko ne man suma ma lu gëna for la ilaha illallah dama la koy jox yow Cheikh Aljuma ndax yow ma ngi lay gis ci batin juroom ñenti at mu ne ko man maa la teggil sax dem nimzat bi yemal fi tay ma cheikhal la tay yor-yoru aljuma ba pare ma teg ci ci kanamu mbooloo mi ne képp ku gis sa kanam bésu àjjuma yaramam aramal na safar keroog ci bés boobu am na sax ñu xawoon am tuuti jalousie parce que c'est humain même ci prophète yi ci yonente yi nit day am jalousie jàngeen euh, njabootu yonte yàlla xanam euh, mbeetekat Youssouf Youssouf euh, Youssouf frère am yi nga xam ne dañu amoon jalousie am ñoo xam ne ñi mbir mi ni mu gaawee daf leen ëlëm Cheikh na Cheikh Saad bu ne kii di cheikh aljuma non seulement cheikhal naa ko jox naa ko li gën a rëy mooy siru la ilaha illallah mais di laa leen xamal ne képp ku ko ci noonu man nga noonu man cheikh cheikh sall kon loolu du caaxaan mu ne teggil gi ma ko teggil dem nimsaat nag na toog xaar ma get addu man maay dem get addu moo tax cheikh na cheikh sall bu ñëw get addu 1904 ñëw fa 1911 li tax mu wax loolu nee na date yooyu date yu ñu xam la du lu ñu créé ndaxte lépp loo wax wax naa ko sànq scientifiquement léegi mën nañ ko justifier wala ñu weddi ko loolu la loolu la Cheikh Ousmane wax nee na nag El Cheikh Aldiouma dafa fonkoon jàng alxuraan alxuraan rek la doon jàng foo ko fekk léegi lanu war na matin midi soir alxuraan lay jàng bu ci noppee di zikrullah di tudd yàlla bu ci noppee itam di def salaatu ala nabi te yoroon téere bi ñuy wax dala ilul xayraat